Ah, ba tey maa ngi nii ah ci euh, fans club Modou Xarañ Lo bi nga xam ñoom ñoo nekk xale yi dem ba jeexu Modou Xarañ Lo ne comme ni ma leen ko waxee woon nee naa leen ñoom takk nañ ci bis bi rip rip rip xale yi takkoon nañ ñu naanaa ma jàkkaarloo benn jamaa banaa toog nuyu naa la maa lay fay nan ngeen gisee combat bi xanaa kontaan rek kontaan ci suñu mbër teg si parce que ñun ku ñu àndal du ragal du daw fitu kese la te ku mu jàkkaarloo nga xam ne gaynde nga jàkkaarloo te la dëggee la mu doon wax yëpp defu ko Modou may na ko wet bi jox ko tànk bi munu si dara xam nga léegi lan lañ bëgg mooy mu tëj gémmiñam te nangu lu yàlla dogal mooy comme ni ma ko waxee ku nangu lu yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex ndax Modou dafa xarañ ci lépp mën li mu mën mbëru àdduna la ñëpp a ko bëgg ku ñëw ci stade ñëpp ànd ak moom. dañoo kontaan si moom ndax dafa wane bëri dóor na ko dóor ba muy bëgg a dee moom nag moom leena nag mooy habitude am bu xamee ne bésu daanam day rasu rasu rasu rasu ba daw mais teewul défaite bi ñëw na ndam kii bi victoire bi ñëw na. kontaan nañu bëre nañu kontaan suñuy kaar ak toq nitam cinq personne ñoo ko supporté si géejawaay stade bi yëpp Modou Lo la